waaw euh, jërëjëf ci revue de presse bi c'est vrai que euh, fan yi dund nañu lu metti mhm. ñu ngi jaale quand toutes les familles qui ont des victimes jaale peuple sénégalais yi jaale tamit suñu xalif généraux yi yëpp mhm. ak euh, archevêque de Dakar ci ñoom ñoo yore diine yi mhm. ah évidemment c'est très grave parce que Albert wax il y a l'immigration mm-hmm. il y le transport mm-hmm. alors nous qui voulons diriger le Sénégal il faut qu'on ait des idées quand même claires sur ça <laughs> pour être honnête mm-hmm. alors affaire bu immigration bi moom à mon avis c'est beaucoup plus facile à résoudre que le problème du transport ah bon ouais. à quoi parce que c'est lié à deux phénomènes bu njëkk bi mooy la pêche artisanale qui a plongé te loolu politique gouvernement bi moo jël ay licence jox ay ay ay ay bateaux étrangers surtout les bateaux chinois dem ba dugg ci yaboy bi euh, ce qui fait que alors que depuis toujours dañoo doon préserver benn zone ak ay espèces pour la pêche artisanale xam nga loolu incursion boobu moo tax effectivement entre autres avec évidemment il y a des problèmes de pause ak yooyu mais su ñu jëlee mesure en tout cas su ma nekkee président moi ce sont mes premières mesures sur la pêche c'est clair mm mm-hmm. bato la bateaux là et cetera moi je mets de l'ordre là-dedans de la discipline de la discipline surtout oui. Mm-hmm. alors donc à ce moment là je pense que les bateaux pirogues yooyu mën nañu reprendre seen activité mm Et puis, voilà, il faut les renforcer parce que les mêmes pirogues depuis 200 ans, là, bon, on sait qu'il faut aller plus loin, etc. Donc, vraiment, il y a un travail à faire. Vous avez même parlé à un moment donné qu'ils allaient amener une façon pirogue de verre, là. Ils nous, ils nous montaient à Dakar Nav, mais finalement, ça ne prend pas. C'est des mm. questions technologiques simples. si nous défaisons l'eau, jàpp naa ne mooy axe bu njëkk bi ñaareel bi et là on est en plein dans la économique ah, moi je ne suis pas d'accord avec les orientations de politique économique depuis plus de vingt ans dans ce pays mm-hmm. bind naa ko wax naa ko mm-hmm. parce que nee naa leen xam ngeen lan la mm-hmm. ali kala ji mooy lan il faut aller vers l'industrialisation et tu pas ma conclusion comme ça à la sortie du nerf ñuy réfléchir ci Sénégal ñoom professeur Kassé les assises nationales ñu fa daje woon ñëpp conclusion boobu la ñu tiré que Sénégal toll na fenn foo xam ne il nous faut engager l'industrialisation près mooy lan ñu andi usine xale yi liggéey et c'est possible c'est possible mm-hmm. le Sénégal avait connu un début d'industrialisation mm-hmm. bon après on a cassé ça avec l'ajustement structurel et maintenant bon jàpp naa ne war nañu jublu ci loolu en tout cas man sama programme 2024 c'est très clair en matière économique du ma fi nekk jàpp ni l'économie c'est la mendicité internationale sol ce costume dem Fonds monétaire Banque mondiale et cetera parce que évidemment euh, bon c'est ce qu'on a connu durant vingt ou années et mais loolu dépassé nañ ko mm-hmm. il nous faut faire de l'économie il nous faut faire de l'industrialisation il faut amener des usines nous avons identifié des filières mmh. une des filières les plus importantes fa nañuy commencer mooy la filière agroalimentaire xam nga dund naa ko sànq mm-hmm. la souveraineté alimentaire elle doit être conquise dans ce pays mmh. nous avons cinq ans pour ça suñu ko dépassé sept ans il faut se mettre en ordre de bataille pour ça caaxaan faxe Mhm. parce que nag duñ fi toog muy awaat ay Covid séeréer yi du ñu am lu ñu lekk. <laughs> Hmm, kooku mënta nekk yaa ngi wax ci Covid bu lu am solo. oui euh, a vécu c'est une expérience mondiale. Ah mhm. il faut en tirer les une des leçons moi j'avais fait un papier à l'époque où ils avaient dit l'Afrique allait sombrer. Mhm. j'ai répondu j'ai dit vous vous trompez l'Afrique va pas sombrer le texte est disponible. je donnais les raisons pour lesquelles l'Afrique ne va pas sombrer et l'Afrique n'a pas sombré. mais ci biir loolu xam nga économistes yi dañuy discuter depuis cent ans ah sur les neuf bien premiers le transport le logement la reproduction ak yooyu ban moo ci ëpp doole mm-hmm. ñëpp am nañu doole parce que moo leen ñu tuddee leen bien premier mais ma ne leen Covid bi gis nañ ni bu ci ëpp doole mooy santé wér-gu-yaram bu mm-hmm. wérul doo lekk mm-hmm. doo tal naan tout à fait alors au moins l'expérience ou l'expérimentation suñ ko mënee wooyee noonu wane na ne wér-gu-yaram moo ci ëpp doon donc war nañ ci jublu ak alimentation ndox ak dund gi loolu nag comme demoon nañu ba bateau yi dawatuñu ñun ñu ñun suñu dund gi ñu ngi ko wékk ci importation de riz mhm. sablé et cetera et cetera pomme de terre euh, voilà il faut régler ces problèmes-là et c'est possible. Mmh. nous avons l'eau nous avons les terres et à partir de ce moment-là on a la jeunesse je pense que loolu suñ ci jubloo émigration clandestine bi dina wàññeeku parce que su boobaa xale yi nañu am xëy parce que le problème c'est l'emploi des jeunes. Mmh. foog ngeen xam ne sur trois cent mille jeunes qui se présentent chaque année ici au Sénégal di liggéey c'est trente mille encore, parce que le gouvernement a pris des xëyu ndaw, a mis de l'argent, a mis 100 milliards ici, la DER, ils ont pompé avec la dette, en fait, c'est l'argent de l'endettement pour loolu. Mais yooyu yëpp soo ko dajalee c'est 30 000. Maria, pas possible, on peut pas ne peut pas, Adama. Les restes, ils font quoi? Mm-hmm. ñaan ñi buuxante dans les secteurs informels, je reviendrai sur ouais, les l'autre mooy dëgër fit dëgër costaud il tente la diaspora avec mm -hmm. toutes les conséquences qu'on connaît léegi sax dégg naa India et Guatemala pour aller aux États-Unis les autres ils sont, ils sont ils sont ils mhm. alors donc il nous faut engager de manière à mon avis ferme vraiment affaire boobu